Argentina wolof njaay dafa ne dina matteem du matte gul ko jox sa loxo waaye it fagaru dafa gën faju tribune yéen kaay ne ma omicron dikk na ci réew mi laas ne ko takkaat leen masque yi dandante te di jëfandikoo gel yi ndax omicron dikk na ci réewum senegal mi ngi fi réew mi quotidien ne ñetti cas yu positif yu omicron la ñu am fii ci réewum senegal tribune yéen kaay ne ko ñaari cas yi moom ñi ngi ci ndakaaru jël job sangomar benn bi benn waay la bu am ñaar fukki at ak juróom ñëw ci réew mi dal scat urbam ka ca des ab soxna la ñaar fukki ak juróom ñett la mi ngi nekkoon ci hôtel fii ci ndakaaru yéen kaay bi dee média bi samp laaj ndax tiit ci omicron mi war na en tout cas source a mi ngi lay xamal ne institut pasteur ak IRSF ñoom dañoo def seen i communiqué xamal askan wi ne leen omicron gis nañ ko ci suñuy saytu gannaaw loolu communication bi nag dafa mel ni neexul waa nguur gi moom kay daanaka tendre nañ leen par quatre yëfi gone ministère de la santé métit lu li gaa yi gaawantu di communiqué ndax wujje waroon nag bàyyee direction de la santé ñu wax ak askan wi yéen kaay bi ne ma wax ji dootul foofu wax ji mooy gaa yi jëlee omicron seenum réew ko fii bokk ci atelier ak ci ndaje yoo xam ne dafa fees dell ki nit am na ci ndaje boo xam ne président Macky Sall ma nga ca woon maar day taali Sud Quotidien ne ma juge Demba Kandji wax na maar day taali juge Demba Kandji ne waaye du doon ci àtte Khalifa Babacar Sall wala beneen ndax ba ma nekkee juge man Demba Kandji ma fi woon ngir bëgg neex kenn dama fi nekkoon ngir wax yoon juge Demba Kandji ne man la bés bu ñu demee ba askan wi tàmbalee nag weddi seen administration coow day daal di dugg le quotidien le quotidien ne coow laa ngi ci man dikkal ma xamal la ne Aliou Sall day moom it wax na waaye ay 400000 waxu ko ba ngay wax ca mairie ba ca géejawaay te ca faali daal dinay wax de joxoñ baaraam tuuma nag Amadou Talla ci ñàkku téye gi ñàkk téye yi bëri na accord yenu ci réew mi de ci faala ko xamle syndicat jàngalekat yi déggootuñu ak nguur gi te boo maytul dina andi grève yu dul jeex de ni réewum Sénégal ngay gis jàngalekat boo xam ne juróom-ñaar jàpp juróom-ñetti at dina ko toog te du avancé ngeen teg ci nag daal di yees juróomi junni ci ñoo ñee tàmbaleegunu waaye ña ngay ñaxtu sonn lool moo tax nag Déthié Fall ne ko yow Mamadou Talla waxal président Macky Sall mu méngale ak jamono njàng meeg njàngale mi te bàyyi nag sunu njàng mii muy jël lu mu ca def politique ko tribune yéeni kaay ne ma Adama Faye goro président Macky Sall it wax na ci nag bataaxal bi ñu ko yónnee benn fan ci weeru décembre xamal ko ni dindi nañu ay couleur coalition bi defar sa gox Adama Faye ne leen yéen a ko tey ndax bés bën leen xamalee ne leen dañuy sos coalition bii ca ngeen tàmbalee rëg-rëg ci saa si da ngeen wax nag ñu bloqué suñu liste bi président Macky Sall daal di ànd ak Pape Samba Diop waaye tam Mahmoud Saleh nam leen tuddee ñaana duma ko wax Adama Faye ne ñu tàmbali nag wër suñu ñetti téeméeri mandataire ci réew mi di sàkku ci ñoom ñu trahir suñu liste bi defar sa gox ku ko ci def koppar gu takkoog la doon xaar Adama Faye ne dem nañ sax ba ñuy xupp ci liste dong kan la Bassirou Samba Niass di xupp dëgg-dëgg tribune yéen a kaay samp nag laaj yéen a kaay bi daal di may xamal ne directeur général bu impôt dañ koo defar ab article boo xam ni mar yu bari ñoo daal di génn weddi gannaaw laaj ba samp kay mooy waxtu woo xam ne ñu fi bëgg andi waat premier ministre war a soppiwaat gouvernement lan moo war tax nag ñuy commandité ngir yàq Bassirou Samba Niass moo tax yéene kaay ne ma personnel ba ngi koy jàppale de ci kombaam yii gaa daal dafa mel liggéey bu leer la ñuy bañ wala it ñenn ñi saytu gi ñuy def ci biir entreprise yi am na ñoo xam ne bëgguñu ko benn inspecteur buy saytu xam le ci l'enquête quotidien ne bu dee ministre ba nu gàlloo bëggul nu saytu ñun moom amati 24 heures yéene kaay neen Dakar jël Diop neex na kan mooy gagné diggante Barthélemy Diaz ak Abdoulaye Diouf meeting d'investiture daal am na bu Abdoulaye Diouf Sarr Ba daal di fay dal ci kaw opposition bi xamal leen ni élection yi du président Macky Sall te ñun bés ba 20 sur 20 la ñuy am na leer fukki commune ak juróom-ñeent yi la ñu soxla 24 ne loo ci mënti déggit nasaraan si daal ñooy doxal suñum réew lu ñu ñàkk-ñàkk forum civil ñi ngi xeex ngir ñu am dund gu ñoŋ moo tax it meilleure note de l'année 2021 lañ leen daal di jagleel yéene kaay bi daal di dama forum civil dañoo def seen kéemtalaay kattan ba gox yu bëri ci biir réew mi amuñu woon ndox am ko waxtu woo xam ne gaa yaa ngay politique ba taluñu ñu ñu askan wa di jeew ak mar ci biir réew mi forum civil loolu la liggéey tribune yéene kaay ne ma Gambia moom Barrow daal dina fay jël ndam li l'enquête quotidienne ko waaye ñett ci ay candidat lànk nañ ne résultat yooyu duñ ci ànd tey duñ ci ànd ëllëg yéene kaay bi ne ma waxtu woowu Macky Sall moom ma ngay setal réew mi opération set setal la président Macky Sall wootee libération yéene kaay ne ma lu réew mi set set bu leen fàtte ni Tahirou Sarr jébbal nañ ko juróom benn junni juróom benn téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent mètre carré ci loo xam ni scandale kese lañ ko teg administration ba ci mode fast track la ñu jébbalee Tahirou Sarr loo xam ne ña doon noon suuf sa ca ndem si yàlla bàyyi mbay njaar a géy amuñu ko jamono jooju ñu jébbal Tahirou Sarr suufu jàmbur ca mamel association yi nga xam ni dañ doon manifester ngir suuf soosee ñu jébbal ko seeni borom waxatuñ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 ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Mante. Euh, médaille bronze la décroché euh, kii di comité nag euh, junior fii mooy de cinquante neuf kilos Binta Diop moo am médaille bronze mooy de quarante huit kilos mooy mën a ñan am argent junior garçon soixante mooy de soixante huit kilos Chérif Konaté la argent la am mooy de soixante kilos kii di Talla Razak Ndiaye moom moo décroché lu jëm ci wàllu médaille d'or bi. ñu wax ci ci jigéen ñi amagul ñaar fukki at wala ñu ko weesoo gul Sénégal moo gagné Guinée. waaw Sénégal nag moo daan Guinée kon loolu nag ni ko ci euh, samedi bi la woon foofu ca stade Lat Dior bu Thiès ñaari bal ci dara ñu jàppale nag kon Sénégal jege na loolu nag lu jëm ci wàllum ñeenteelu tour ngir éliminatoire coupe du monde bi nga xam ne ñoo ngi ko fas yéene amale foofu ca Costa Rica ci atum 2022 match retour bi nag dinañ ko amal fii ak ñaari semaine foofu ca Conakry ni ki sànq ci euh, français gi ñu jotoon nañ dem teewlu kii di Aïcha Henriette Ndiaye mi nga xam ne mooy tàggat gaynde Sénégal yi moom mi ne nag mi nga xam ne ni dinañ gën a yokkat taxawaay bi ngir nag mën a amal seen qualification foofu ci euh, Guinée gannaaw ba ñu amee ndam ci kawam ñaari bal ci dara ci match aller bi kon Haji Mansour li moo fi gënoon fës jëm ci wàllum xibaaru tàgg yaram ñu joxante dig daje rek incha allah bu 12h jotee ak Simon Pierre Faye 13h xam naa yow lañ ci ci dégg bu mujj xibaar bi indil Black Friday moo leen di may seen xëw bari ak élection présidentielle yi nga xam ne moo am ca Gambie Adama Barrow jëlaat na raw gàddu ga jiitewaat réewu Gambie bu ñu sukkandikoo ci président commission ba doon Aliou Momar ñii la mu annoncé moo di nii fii résultat yi toll ci juróom-ñeenti téeméeri électeurs yi nga xam ne voté nañu Adama Barrow moo am 53 pour cent ki ci topp di Ousseynou daabo am lu toll ci 27 virgule 7 pour cent lu may loolee ñu wax ci coalition gëm sa bopp daal dinay amal mobilisation bu am solo ca diwaanu Kaolack muy manifestation boo xam ni candidat yi nga xam ñoo bokk ci yooyu la élection ci mairie bu Kaolack ñoo ko organisé woon ni ki démb bokk na ci li ñu gën a déploré foofee ci diwaanu Saloum mooy salte ba fa nekk sonal lool population ba Ndeye Khady Diop lañ ci teewlu ci micro Aline Kane parce que li fi métti ko rek par weñ yi par salte bi par yooyu par mbóot yi par gunóor yi par kaniwoo salte yi ñu fas yéene nag laaj mairie bi ngir suñ ko yoree ñu taxawal benn programme boo xam ne day nekk programme euh, grande coalition gëm sa bopp pour la mairie de Kaolack programme boobu lu mu wax dañ ne si neuf compétences yiñ transféré collectivité locale bi bu si nekk am na li nga xam ne dañ koy liggéey mais balaa ñoo wax li ñuy liggéey dañ naan ñun suñu vision pour Kaolack mooy mu nekk dëkk bu set dëkk bu ami garab naat dëkk boo xam ne euh, ku nekk di nga am si as tuut loo jàpp di yóbbu comme sa biir këkk dëkk bu neex a dëkk ñun loolu lañ bëgg si Kaolack te loolu mën nañ ko def naka lañ koy defee benn bi ñu nekk maire boo xam ne maireu jàmm lay doon man moom kaw Kaolack ñëpp xam nañ ne jàmm laa am. population ba nekk ci Sibassor ñoom dañuy ñaawlu installation usine bii di Sonacos nga xam ni nekkam foofee daanaka taxu ko bari njëriñ ci ñoom ndax askan wa gisuñu seen bopp ci moom te it nag indi na leen fa pollution boo xam ni la mu jagadil ci seen environnement bari na lool ñu fekk fa euh, Alioune Kane. usine bii di Sonacos ñu implanté ko ci Sibassor mu ngi daal polluer atmosphère bu gox bi muy li nga xamante ne bi daal ñu ngi koy ñaawlu rax ci dolli nee nañ daal lii di responsabilité sociétale d'entreprise respecté wu ko. Euh, en plus yàgg naa ko déplorer mooy usine Sonacos bi nga xam ne nii à chaque fois moo fi nekk vraiment di polluer euh, nit ñi te benn retombée doomu Sibassor gisu ko ci loolu dama koy je l'ai je l'ai tantôt crié décrié haut dama bëgg ñu loolu. beneen jafe-jafe mu jëm rek ci wàllu kaaraange gox bi. mooy Sibassor amul sécurité Sibassor amul sécurité tey on est menacé par des vols récurrents. Sibassor kenn nelawatul ba yar ndoor parce que amuñu ñu ngi réclamer benn poste benn poste brigade yàgg naa ko wax aussi benn post benn brigade de gendarmerie. nawetaan amatut ci zone bi. programme wala ay projet yu am solo yi nga xamante ne dañ ko waroon a jëmee ci askan wi it amul kii nga xamante ne nag mooy candidat bu union citoyenne bunt bi di Paye bu Ndiaye nee na daal saa suñ ko falee ci bopp gox bi dana fexe suqali gox bi ñu ngi lay jaajëfal Alioune Kane ñu wax ca diwaanu Pikine ñuy jaay ci marché hebdo hebdo ba nekk foofee ci diwaanu Pikine ci dimanche dañoo dañoo ñëw fekk promoteur bi ni leen balaa kenn jël benn tànt faw nga fay ñaari junni te waaju lu ñu ko woon waxtaanuñ ci ak ñoom am loolee duñ ko xalaat def mooy li tax ñu daal di lànk te dénoncé nag boobu la doxalin nga xam ne ay naxaate dong lañu ni moom la ci euh, promoteur bi jublu te ñu ko nangu tey ni ki ëllëg Fatou Mbuub mooy kàddu commerçant yi ñu teewlu ko. Fatou Mbuub jàppandiwul kon ñu wax ci population bu Kounoune nga xam ni démb def nañu manifestation takk ay morceaux yu xonq ngir di de ngir di sàkku yoon bi nga xam ni commencé woon nañu ko liggéey foofee mu daal di sotti loolee di ay jafe-jafe yoo xam ni tey indi nañu indi na ko ci diwaan ba boole ci itam ñuy sàkk ab lycée foofee ci Kounoune ñu fekki fa Cheikh Ahmed Tidiane Seck ak Mansour Ndiaye doxub ñaxtu bi mu ngi tàmbalee ca place publique bu Kounoune jeexe nag ca post courant bu Kër Daouda Sarr 1 kilomètre 500 ci tali ga nga xam ni moo waral coow li ndax askan yi dañoo bëgg ñu àggali liggéey ca na mu gën a gaawee. ñu commencé dañu ne 3 mois ñu tàmbali nekk ci nekk ci nekk ci mais ba yàgg ah gisatuñ leen gisatuñ leen gisatuñ leen. si biir ñu gis ñuy roñ seen i matériel di yóbbu di roñ seen matériel di yóbbu. man la comprendre nag mooy kilifa di wax. Eh, te wax ba yàlla xam doy na. loolu baaxul. ñaareelu pàccu njàmbutuk askan wi ñeel wàllu lii sa gën ñu soxla ñu tabaxal leen ko ci seen ak dëkkuwaay ak yeneen i jumtukaayu suuf. ba CM eh, bi ñu am mu ngi cité Baba Guissé si eh, Thierno Ousmane wax na ko sànq ba sixième yi day def cent cent vingt élèves nga dem si primaire yi day def ay quatre vingt quinze ba dix mais loolu c'est trop. non poste de santé moom mën nañu wax ne presque amu fa bu tawee kenn mënu fa dugg. est que dafay fees dell ak ndox. kenn mën fa faju responsable yu mouvement Debout Kounoune di ñaawlu nag doxalinu seen ak kilifa ga ñu jàpp da doon jéem a def ay jéego ngir nësaxal seen ak yëngu. bi ñu waxtaanee ak moom aussi. bàyyi ba démb ñu war a marche déposer marche ba bu yónni fa ay services technique de l' état des services de l' état pour une cause politique. ça on ne veut pas ça. et on nous fustigeons cela nous dénonçons cela jusqu'à la dernière année. marche bi mu ngi amee ci dal ci encadrement bu tak bu élément gendarmerie nationale. maa ngi lay euh, jaajëfal Cheikh Ahmed Tidiane Seck ñu wax ci leneen euh, di euh, ñi nekk fële ci diwaanu Bawol nga xamante ni bii dañuy dund ci wàññeeku ci ak laago ñoom itam dañoo jàpp ni war nañ leen a gën a bàyyi xel bu baax ci dimbali leen ci ay jumtukaay surtout ay machine wàllu ak yu mel noonu ngir kat ñu mën a génn ci jafe-jafe dund gi nga xam ne moom la ñuy jànkuwanteel boole ci itam di sàkku ñu gën leen a taxaw loolay li tax ñu jox leen ay matériel médical yoo xam ne kilifa yi ñoo leen ko jox ngir seen nekkin gën a mën a sell ba ñu yëg see dëgg-dëgg seen seen nag ak seen nekkin ci biir askan wi ñu fekk ca Bawol Abdoulaye jaañ ci njaareem juddu na fi taxawaay bu yees peq ci jigéen ñi ñu fas yéene gàddu lépp luy jàmbatub ku néew doole te yeewoo ci diwaan bi. képp doomu aadama bu ti nekk rek mën na def. plaidoyer ba nga xam ne nii tey par exemple way laago yi dañu leen mën a jox seen gëdd ni mu waree ñeneen ñi tamit dañu leen gën a jox seen gëdd. jamono yooyu lee muy woo kenn ku ne mu dugal yoxoom ci lu mën a jëmale kanam gox bi. toog rek di jàmbat ñun de fas wu ñu def noonu ñun dañoo am li ñuy wax attitude